grève de la faim bi li ko indi mhm. ay mbir la yoo nga xam ne bokkul ak dara bëgg a génn kaso ak bañ a génn kaso man dama toog sama kër gis ne dafa am lu nekk ci pénc mi muy démocratie senegal démocratie euh, doon na neex lool ñu am thème bu nga xam ne dañuy waxtaan ci lan mooy démocratie su ko nit ñi xamoon rek ñi nekk ci pénc mi taxaw di dem ci plateau yi di waxtaan ak senegal yi ak buñ nee ñu ñi ngi bindu carte d'identité wala ñi ngi wate wala ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi def injustice ci réew mi nit ñi danañ gën a taxaw pour xeex pour démocratie taxaw fi xeexu pacifique nag bu nga xam ne ci xam-xam laay wax mooy euh, senegal man dama gëm ne dama fee nekk mënoon na maa toog sama biir daara toog sama biir kër bañ a bokk ci débat public bi man maa opté laataa may nekk di wax parce que man mosuma yëg ne sax mën naa chronique wala mën damaa wax ci télé bi lu ñu may dégloo. jë Idrissa Seck mii yëkkati naa plus de sama xaalis bu bari lu ëpp million di dem ma jox ko ko pour que mu mën a battre ay campagne am gagné élection loolu su ma neexoon duma ko def bi ma demee ba yëg ne nekkate lii sama poos mën naa ko ci def mën naa ko def suma yaram mais nekkate suma kàddu mën na ko ma jël suma kàddu boole ko ci grève de di rek continuité xeex bi ma doon xeex ci biti parce que prison damay gis ñu bari nag foofu naan non grève de la faim xaru la grève de la faim xaru mm-hmm. grève de la faim du xaru musul nekk xaru ku ko wax d'accord ma ci loolu grève de la faim benn affaire la bu nga xam ne boo duggee prison euh, benn rek moo am mooy nga accepter toog ci prison bi wala nga révolté wu wane ne d'accorduma ci prison bi ngeen ma tëj révolté boobu nag mënoo dóor garde bi mënoo jël ngànnaay di xeex. mënoo gis micro boo ko waxee. mënoo feeñal ne man accepté wu ma li ngeen may teg lu dul grève de la faim ça n'a rien à ak bëgg a génn kaso bi ak bëgg a dugg ci kaso bi grève de la faim ñu bari ci àdduna bi Mahatma Gandhi def na ko ak ñu bari Nelson Mandela def na ko pourtant du bëgg a génn du bañ a génn. mais forme lit la man damay wax ne rek xam nga ban greffe de la faim lan laa ko gisee mooy dañ laa jël dugal la ci biirum pax ñu ya maa ñu bari ñenn ñi accepté nañ toog ci pax mi man accepté wu toog ci pax mi damay jéem a def effort pour génn fi wala ma yuuxu nit dégg ma xam ne man maa ngi ci biir pax mi. léegi nag ma ne ku la dugal ci pax ngay jéem a def effort pour génn pax mi soo dee moo la rey mais yow mi doon jéem a génn pax mi reyoo sa bopp. comprends nga li ma la wax. Mm. te xaru nit ñi nañ bàyyi bu nit jaaree ci gaal gi ñu ne ko xaru nga bu nit defee grève de la faim ñu day xaru lu nit def rek ñoom pour ñoom lekk ceebu jën moo dul xaru ceebu jën sax am na noo koy toppee da lay rey grève de la faim benn affaire la boo xam ne gis nga xaru xaru laa lay wax mooy ngay jël fetal teg ko sa bopp nii ne nii buñ la fekkoon ne la yow lan nga bëgg amul lenn loo mën a wax lu dul damaa bëgg a dee. Guy Marius Sagna def na grève de la faim huit jours pourtant nekkul woon ci kaso case de tout pati bi Thérèse Diouf Faye hmm. jiite woon moo am ay nit ñu hmm. amoon ak Thérèse Diouf problème hmm. mu dem dox ci munta sotti mu ànd ak ñoom dem ci benn salle ak Hannibal jiim mais ni ñu ne grève de la faim pour régler problème boobu. c'est un cadre polyvalent. oui def grève de la faim boobu tey ci bëccëg xamal nañ ma ne. jigéenu Pastef yi nekk ci prison. Mm-hmm. ñoom tam ñu ngay grève de la faim euh, kii euh, nu tuddati euh, Camp dañuy def grève de la faim muy ñoom Amidia ñoom Matissa Niang ay ñoom Falla mm-hmm. Fleur pourtant nee naa leen su demee ba laaj ko nañ mat téeméer ñun ñii ci bitti wut benn saal dem def fa grève de la faim comme en compagnie te billaahi buñ nangu woon ma dem man nangu naa ñu dem ñu def ko loolu forme de lutte la ku nekk ci biir bitti wax. ak manifesté wu nga mën a feeñale li la naqari ku nekk ci biir kaso grève de la faim mooy li nga mën a wanee li la naqari. mais nag àggoon nga si benn niveau boo xam ne ni ñu bëri jaaxle woon nañ euh, à un moment donné say njëgënaale sax amatuñu woon ay xibaar si yow demoon nañ sax bay njort ne est-ce que euh, jamono jooju euh, tamit bu métti su ma ko mënee waxee noonu si ñi la wër si ñi nga xam ne ni sopp nañ la ba sax ñi nga xam ne ni daan na la teewlu amuñu cofeel boobu noonu si yow. waaw gis nga. tey jii bi may waxtaan ak jigéen ñooñu fi ñëwoon ma wax euh, état bi ñi nekk dama am lu ma wax ci grève de la faim mooy gis nga nit simple nii bu amul lu ko naqari soo ko gisoon jox ko un milliard ne ko greffal grève de la faim dix jours du ko def xëy suba lekkoo. taman hmm. def naa quatre jours ba cinq yu nga xam ne lekkuma naanuma yow grève de total. total jot total ah, non boo defee total mënut dem du yàgg. du yàgg waaw mais dama ko def cinq jours man lott lott bu nga xam ne. cinq jours lekkoo naanu. voilà dañoo dem jëli met camara andi ko moom moo ma wax que ne man naay naan convaincre ma ci keneen il faut nga bool nga jël ndox. ma doo ko hmm. nangoo jël ndox. parce que boobu dama doon def grève total dégg Euh, loolu nag gis nga grève totale boobu noonu. tey suukar wàccul woon wàccoon na kon. ah oui lay ah, wàcc. après moo lay yóbbu woon de la faim boobu. Mhm. maanaam tey bu ñu ñëwoon fekk ma ma toog nii dara naqariwu ma. ñu ne mhm. ma am un milliard mi ngi nii def ko. mën nga jël un milliard bi de. mais boo mhm. defee trois jours di nga bàyyi. parce que nekkoo si condition yi tax ma nga ko def moo koy def. benn affaire la bu nga xam ne gis nga bi ñu may jël si laa njëkk a def grève de la faim dañu ñëw sama biir kër fëgg. dàjj sama bunt nekk fekk sama jabar ci biir mhm. sama jabar boobu ñu ngi ko baare biñ ko baaree pour mu am doom ci même semaine boobu gis nga ko ci la am doom bi ñu ñëwee dàjj sama néeg fekk ma ci biir jël ma ñi ngi fekk sama jabar taxaw yor téléphone am gis nga dafa am ku góor maa ngi taxaw de ku góor ku téye loxoom wiñaar féete nii ku góor wiñaar féete nii kenn jël fetal gi teg ci bopp bi ci jigéen joo xam ne yaa ngi koy gis dafa ëmb ba diis gan samay booy yi nekk ci kër gi ñëw affaire bi naqari leen ñu jóg di yuuxu di mbëkk xam nga man am naa ay ay ay samay gaay yu nekk foofu ci kër gi ñu jël lak ñoom ñu jël lacrymogène dóor ko ci biir kër gi te man gis naa ne xëy na am na lu ma def xëy na amul lu ma def mais ak lu mu mën a demee rek man suñ ma woowoon dinaa ñëw wuy mm-hmm. te yaakaar naa yoon li mu wax ci mbir mi mooy su nit defee dara dañ mm-hmm. koy indil mandat wala nga dindi ko convocation mais doon neex rek nga ñëw biir kër jàmbur rek yanu yóbbu mm-hmm. act boobu ñu ma defoon loolu moo taxoon ma entamé grève de la fin loolu lan la jote ak bàyyi jote wuñu dara daf ma naqar yi bi ma demee anam giñ ma jëlsee loolu laa doon grève après nga nangu après ma dem te silence aussi. bi ma demee ci prison bi ci ci ci commissariat bi tamit. Hmm. ñoom ñu bëgg ma entendre que ma wax ak ñoom ma def tamit même chose que forme forme de grève de la faim aussi que ne leen du ma wax ak yéen parce que li ngeen ma teg moo ma naqari kon dinaa leen wan nekk ne ànduma ci ak yéen moo tax ma def grève bu wax noppi gis nga grève lu dara nit day nekk jabaram nga gis ta jabar am lu muy def lu la neexul nga jékki-jékki grève ko. doo sëy ak moom bu tegee lekk gi doo lekk buy wax doo ko wuyu pourtant da ngaa greffe loolu greffe la de léegi prison tamit boo ci duggee souvent dafay am ay actes yoo xamante ne loolu rek parce que dañoo tëj bunt yëpp tëj nañ sa làmmiñ dama koy wax ci kaso bi gars yi di ma ree dama leen ne dafa mel ne Macky Sall dafa ñëw dugal ma fii ne ma léegi sëñ Baara sa dox sa tànk yi ma ne jël naa ko euh, sa làmmiñ bi nga doon nekk di wax rek Walfadjri téye naa ko dégg nga sa loxo tamit dootoo joxee kenn du la jox dara léegi jël naa loxo bi ma ne ko sawaay kaay ba mu ñëw ma ne ko lekk gi ak naan gi <laughs> léegi moom mu ne ah non kon boo naanoo da ngay feebar te lay faj non lekkal ma ne non lekk <laughs> maanaam exemple boobu rek laa leen. que ñoom <laughs> boole si lekk ak lekk ñu ne ma non léegi comme jël nga samay tànk jël nga mm-hmm. samay loxo ah jël nga sama làmmiñ kay jëlaaleel naan gi ak lekk gi lu may doyee lekk ak naan kon parce que yow da ngay lekk naan pour say soxlay bopp. mais man du ma lekk di naan pour Macky Sall te tëj ma foofu rek di ma xool wax na ko jëlaaleel sa lekk ak sa naan nga yóbbaale man tamit léegi ñoom xam nañ ne ah no kii bu lekkul naanul pendant des jours day daanu bu deewee kon dañuy am problème wala bu bu feebaree bu ëppee dañ koy yóbbu principal. te yow pare woon nga pour de ba ah dara lu ma mënul woon lu ma mënoon a arrière loo si li ma nekk lu dul ñu libéré ma bàyyi ma waa ilaa liñ def nii mooy mun Mountakha wax ne bàyyi leen ko. Mhm. ñu doog ma bàyyi lu dul loolu ñu ma doog a bàyyi grève bi lu dul loolu amul lu ma mënoon a bàyyiloo man def naa vingt yu nga xam ne lekku ma lekku ma naa cinq jours yu tegaloo yu nga xam ne naanu ma ndox lekku ma après may jël ndox. Mhm. matin midi soir maanaam su ma yewoo damay naan bouteille bu toll nii su ma xëyee su su su heure ma def ko mhm. su ma demee bay tëdd ma defaat ko ba mu mat vingt-huit jours hmm. yu nga xam ne lekkuma naanuma yoo xam ne lekkuma hmm. léegi nag nit yaramam suukar lay soxla après da nga am hmm. ay glycémie maanaam sa sa yaram day dem ba nga xam ne euh, li tax sax ngay mën a avancer tuuti mooy nit foie bi dafa am suukar day dégager ay suukar yaram bi di ko jël naturellement mais loolu ci mënul dem dix jours bu demee dix jours léegi sa yaram day ñàkk suukar nga daan gis nga boo dee xool nii boo greffé de la faim booy xool nii yow Diallo boo taxawee sama kanam may xool amul lu ma mën a wax ne kii du ñetti nit. maanaam gis du leer da ngay. non day mel ne kii ñetti nit la moom. voilà yow mm. kenn mënu laa wax. lii lii du trois personnes. da nga mm. gëm ko da ngay jàpp ne ñetti nit ñoo taxaw sa kanam. parce que nit ki sukkal mooy dem mooy. demal cerveau ñetti médecin nga doon gis. ay non booy dox nii dañ lay téye parce que booy dox. da ngay gis que gis ngay gis mel ni ay pax. dangay mel ne maanaam yow da nga jógee ci kaw benn montagne. waaw di wàcc di wàcc ci biir pax. mel ni ay pax mm-hmm. mooy tax doo mën a dox. Mm-hmm. dégg nga noonu la affaire bi demee léegi nag cerveau bi muy téye loolu mooy tax yow da ngay gis xam nga nit boo gisee dara. Mhm. boo gisee nit ku bopp bi metti wala ku feebar siburu yooyu. Mhm. ngay gis ngir ñu naan diw dafa siburu dafa gis ab xaj. waaw wala dafa siburu. wala ngay commencé di tudd ay tur. di tudd ay tur xam nga lan moo koy def. waaw mooy boo demee ba sa yuur gi ba sa yaram tàng dëgg. bu yuur gi tàngee. Mhm. léegi boo gisee tele bi. boo ko xoolee yuur gi moo lay wax ne lii télé la. léegi nag gi tàngee ba dof. système bi maire ba dëkk sàng kër sàngam la nga tudd koo xamante ne nekk fi mm-hmm. fekk gu tàng la rek bën na ñoo xam noonu la leen tooñee sax jeex na mm-hmm. léegi nag euh, boo gerefee glafinté bi sa suukar bu demee ba sa yaram manqué suukar dëgg dëgg dëgg dëgg maanaam da mel ni ne que mm, doo dof na parce que di nga mm-hmm. xam di nga xam di doo wax di jaxase doo def dara mais sa bët moom dalay fen loolu moom am na ba pare bi da ngay gaaw a fàtte ak yu bari